nañu bàyyi xel ndax doomu aadama li ngay jël joxe ko mu nar la yóbbu ba juróomi at wala ba juróom-ñaari at war nga saytuwaat bu baax ki nga koy dënk war nga saytu bu baax ki nga koy dënk ndax buum la guum boo xam ne danga koy dugal sa baat jox nit te boo naree jël buum dugal sa baat jox nit mu jëmee laay at war nga xam diw boobu kan la ak lu mu doon ak lii mu yéeneem euh, beneen woote bi may wote mooy géej bi du solution immigration clandestine bi du solution du ma ko tuddee xaru nag déedéet ndax mënul nekk xaru ndax ki nga xam ne am na yéene yor ndeyam yor baayam mu xëy gis baayam gis ndeyam juróomi dërëm bu mu leen di jox sax amu ko mu gis foo xam ne ne jàpp na ne moom ci xelam foo mooy solution mu ne daf fay dem wuti teraanga ngir ñëw teralee ko ay waajuram te ay nit jiitu ko ci loolu di def loolu bu fa duggee loolu kenn mënu ko tuddee xaru waaye nag du yoon woo xam ne yoon la ñu war a jaar ngir teddange ndax suñu réew mi lépp a ngi fi buñ ko tegee ci yoon manqué wuñu dara ñàkkuñu dara manqué wuñu dara ñàkkuñu dara li fi ne mooy organisation boo xam ne ñu jiitu buñ ko organiser jàpp naa ne li ñuy naan ci taux ci doomu aadama yi fi ñàkk ci réew mi mën naa ne mën naa wàññeeku wala mën naa gën a néew li ñuy wax Qatar li ñuy wax kowet li ñuy wax yeneen dëkk jàpp naa ne réew mi mën na ko mën na koo gën a weesu kon loolu laa am ci li may wax ndaw yi yoonu ndox mi di immigration clandestine du du du solution euh, lii solution mooy ñu delluwaat ci seen réew jël seeni suufu réew liggéey ci tedd ci euh, ngir seen ëllëg incha allah